Omar Sow nekkoon nag ministre de conseil ci nguurug président Sall moom nag eh, jamono ji nag ma ngay eh, génn di feeñal li nga xam ne rek moo di ay secret yoo xam ne rek eh, daf koo xamoon jëm ci nguurug président Sall moom nag kàddu yi mu yëkkati nekk na kàddu yoo xam ne kàddu yu doy waar la ginnaaw kàddu ya nga xam ne daf ko yëkkati woon waxoon ne rek su Bassirou Diomaye Faye toogee ci bopp réew mi di Sénégal dina def li nga xam ne moo di ay révélation maanaam daal dana génn wax lépp loo xam ne rek moo xewoon euh, ci nguurug président Sall leeral lu bare bari nag ndax kat ki nga xam ne euh, moo di président Sall def a saraxe ñoom ñi nga xam ne rek ñoo àndoon ak moom jamono ji nag ñuy àddoo ngeen di teewlu euh, ki nga xam ne rek moo di Omar saw nekkoon nag koo xam ne ministre bu jege woon la kii di président Sall ma ngay def la nga xam ne rek waxoon na ko ginnaaw ba ka nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye toogee ci bopp réew mi Sénégal moom Omar Sow jamono ji nag moo ngi wër ci ay plateau di feeñal li nga xam ne rek moo di ay secret yoo xam ne xamoon na ko eh, ci nguuruk eh, président Sall di wax ni rek ki nga xam ne moo di président Bassirou Diomaye Faye na ko protéger ngir rek eh, mu leeral mën a wax lépp loo xam ne rek moom la xam ci nguuruk président Sall ji lépp loo xam ne daf ca nëbbu moom Omar saw moo xam kàddu yu ni di wax ne itam ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko sax li nga xam ne doon na ko def mu di rek di feeñal ñi nga xam ne rek ñooy jël alalu askan bi loolee kenn dàqu ko ko ndax kat xam na lu bare bari ci li nga xam ne rek moo xewoon ci nguuru président Sall di wax ne rek eh, ki nga xam ne sax moo di Macky Sall daan nay jël eh, trente milliards daal di koy eh, jëndee benn avion loolu nag di ay kàddoom moom ki nga xam ne moo di Omar saw di wax ne rek Macky Sall fan la war a jëlee trente milliards. ba koy jëndee li nga xam ne rek moo di avion loolu nag di ay kàddu yoo xam ne uh, kii di Omar saw moo ko daal di yëkkati di wax ni rek am na yeneen ak yeneen yoo xam ne xam na ko te day téye ab làmmiñam ba gis leneen doog a wax leneen moom nag ay kàddu yoo xam ne daf koo yëkkati foofee nga xam ne moo di ca Seneweb mu nekk nag kadd yoo xam ne kàddu yu doy war la yoo xam ne nag ñenn ci Sénégal yi ñu ngay wax nee nañu ko gëstu ba xam nag la muy wax dëgg laam déet ndax kat trente milliards dafa bari lool Macky Sall nag war nañoo gëstu ba xam rek fan la jëlee li nga xam ne rek moo di alal ji keneen ku àddu mu di rek Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moom mi nga xam ne rek ñëpp ràññee nañ ko lool eh, ci réew mi di Sénégal mu yëkkati ay kàddu daal di koy jëmee ci ki nga xam ne rek moo di eh, Macky sàll waaye itam jëmee ko ci ñi nga xam ne rek jamono ji ñoo fi daal di toog ci bopp réew mi di Sénégal muy wax ni rek Macky Sall moom warul génn benn yoon sax réew mi di Sénégal eh, te leeralul wala itam waxul sax lan la fi daal di am diggante bi nga xamee ni rek daan nañ koy dénk réew mi di Sénégal waaye nag dañoo gis ak yàkkamti ci ñi nga xam ne rek ñoo daal di falu yàkkamtee dugg pale ba sax ñoom tëluñu loole waaye nag loole lu war la ndax kat Macky Sall warul génn benn yoon réew mi di Sénégal di dem fenn te leeralul alalu askan bi lépp loo xam ne amoon na ko avant muy toog waaye itam bi mu toogee ba noppi nag ba wàcc lan la fi daal di am loolu nag di ay kàddu yoo xam ne kii di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moo ko daal di yëkkati daal di koy jëmee ci ki nga xam ne moo di Macky Sall waaye itam jëm ci ñi nga xam ne rek euh, ñoo fi daal di toog jamono ji ci bopp réew mi di Sénégal ñu teewlu vidéo bi nga xam ne Omar Sow yëkkati na ay kàddu foofe ca Seneweb jëmee ko ci li nga xam ne moo di ay secret yum xamoon jëm ci nguur président Sall. yëkkati ay dossier te gisuma ñooñ ci biir man dinaa jóg wax ci télé ne Bassirou Diomaye Faye président de la république damaa soxla nga protéger ma parce que je serai un lanceur d'alerte te dinaa la ne diw ak diw dañoo dil ci ci ci doo Sénégalais yi parce que nag ko Sonko lu mu doon def ñoo ko dàq mooy taxaw di jiñ ay di ay góor te ñun dañuy jiñ de dañuy tuumal dañuy génne ay problème ne ko demal ba bërëm nangam nga dem société nangam génne dossier nangam nga di fa fekk nangam ba ci avion président boo xam ne Macky Sall jënd na ko. jet privé boo xam ne jënd noo ko moom mag Sall. Ah Falcon la jënd il a payé un Falcon à 40 milliards. ak ak leneen lu ciy ànd yu ñu ci dem yëpp. jet privé kañ la ko jënd. léegi nga gis ko mu commencé di ko yor.